les Indiens. Même chauffeur ISS, même chauffeur ICS, Inde lay Il y a un jeune ingénieur des ICS Il y mu un conseil spécial du président Mon que on est réduit à zéro nous les ingénieurs sénégalais Il faut que képp ko da ngay dé waa ni ha mu ni ko képp ku ci wax rek da ngay dé man nak dama ñaan yalla ñu ma làqatu ci ba ñoo ma wax la koku def la tout ba informer le président li am mais ingénieur boobu te ñëwoon boole ji boole ji indien tégu nit ki deux semaines ñu wane Seneweb dañ ko fekk ci biir négam mu dé légui sénégalais yi nekk di liggéey ak indien kenn ku ci wax ne nañ nga man mom bi bo ngeen volu lolou la Senegal, nekké sénégal indien bu ngeen gis muy dawal sénégal mu ngi tak lu xonk ci loxo bi wala mu ngi tak lu xonk ci auto bi wala mu ngi tak lu xonk ci dara pour que nit ñi di gis lu xonk lool noonu rek musiba yoyu lañu makka Sall indil sénégal les jeunes de Tiwawan moo parfois j'ai mal j'ai mal buma gisé ce qui se passe à Tiwawan les jeunes de Tiwawan ñom ñop ICS Mboro nañ dal liggé ñom ñop ben affaire bu na amoon bi mo moro, ICS Mboro té nañ don dundé té nañ don démé légui indien yi jël nañu yépp Tiwawan bi nga xamni tay ji le président de la république gagné na fa sax largement je peux dire wala sakina fa largement jeunesse Tiwawan lan moy sen activité. Quelle est seen activité en ce moment au Sénégal ils n'ont que deux jours d'activité au Sénégal c'est les jeudis et vendredis activité bi de la Khadara juma toute une jeunesse de toute une ville activité bi nu am bi yëpp et pourtant que le même président pour gagner largement ñooñu benn activité l'activité am mooy Khadara juma Khadara juma cest dire que des jeunes c'est, voilà dem liggéey am mercredi dañuy commencé fort sen yéré sorti ci ciuray ba mu ki def ci lis jeudi ni commencé khadara juma voilà l'activité de la jeunesse de Tivaouane et pourtant jeunesse bi nga xamni dañ daan dem di ray sen bop duñu dem di jaamu ji kenn dé jang nañu diiné bi jang nañu alcorane bi mais malheureusement avec un président comme ça di utiliser ay bourse familiale de diriger les mère de famille les père de famille qui sont dans le besoin jusqu'à détourner ay élection, détourner ay voix c'est triste quand je vois Tivaouane ak le Tivaouane vous représenter pour l'Afrique tu vois le jeune de Tivaouane qui est là dàqaloo ko jàng gënoo ko de gënoo ko xam ne adduna bi di doxee mais benn activité nañ ko jox mooy xadara dëkk bu nekkee nga boo ci dem rek moo naa boo ci dem rek seet nañu nu ñuy briser foofu rek ñu dugal fa leneen nu ñuy briser foofu rek ñu dugal fa leneen da dem dans une ville fii tey ji jàng Moussa Ndiaye mooy jàng fee Ibrahima Diakhaté mooy jàng fële euh, Mamour njaay mooy jàng fële mais ça veut dire que buy am bi kenn mënu la ko wax nani nani nani nani naxee askan wi donc tay ji man damay plaid man sumay nijaay awon nañ jang alxuraan alxuraan bu wer nañ jang damay plaider tay la cause de ces jeunes de tiwawon pour que au moins ICS bi len djegge jege ca Mboro que mu delu à la jeunesse de tiwawon ni delloo leen liggéey bi waaye tey jeune ingénieur bu fa wax ñaari semaine nga dee y problème dans ce pays parce que bu ñu waxee ni ni première dame dem na indi dem na indi ay sëriñ yu jege Inde oh Mimi Touré indi na ay sëriñ yu jege Inde mais won nom de Dieu prenez vos sëriñ bu leen neexee sax après ñu jouer leen des films hindous mais render à cette jeunesse de Tivaouane un honneur de leen leen lu nu dem nañu ba nga xamni ICS sénégalais c'est-à-dire que bo waxé mais nit nan lañ chez lui allez demander ces jeunes sénégalais qui sont dans le monde des IT de l'informatique liggéey yi gay à travers l'Amérique du Nord bi nu le Canada aux États-Unis fu nu ñàkkee liggéey indien moo tax ni ñàkk leen voilà xeet bi nga xam ne nit bu ñuul rek la bañ dem leen ngeen xool les étudiants euh, euh, africains euh, de l'Afrique de noire de l'Afrique noire issu de l'Afrique noire ces étudiants issus de l'Afrique noire duñu sax nu nangu ubbi seen gémmiñ en Inde sañu nu jël train sañu nu ubbi seen gémmiñ des tricheurs nga xam ne demal nga xool Euh, Inde tey bu ñu bëggee recruter armée dañ leen di simmi yére bi dañ koy simmi simmi tubéy bi slip nañuy sol slip nañuy defee examen parce que son des tricheurs du début jusqu'à la fin ñooñu tey jii nooy gérer yow même ce système informatique c'est extraordinaire ñooñu comme ñoom mu xam nañu ñu duñu tubaab duñu nit bu ñuul léegi bëgguñu nit bu ñuul bëgg na nañu nekk tubaab ëpp nañu fii matuñu fee ëpp nañu fii matuñu fee duñu tubaab duñu nit bu ñuul kenn xamul fan lañ leen di kii ndox moomu couleur ndox moomu te yaaya te te te te te te laa bëgg leen indi fii euh, Bill Gates couleur ndox boobu mu leen bëgg indil foofu ñoom couleur boobu nañ c'est-à-dire que ne ëpp nañu tubaab matunu nit bu ñuul dañu xam dañ nekk ci diggante bi moo tax ni jaar fa bañ nit bu ñuul nit bu ñuul lañu bañ da ngay dem en mission yow nga nekk chef de délégation dans une mission une mission fédérale ngay jiite ay tubaab nga dem benn équipe Inde ngay ngay nga leen di rencontrer mais du la nuyu yow te fekk na yow yaay chef de délégation bi man dal na ma ñaata yoon yaay nekk chef de délégation bi du la nuyu yow mais tubaab bi nañuy waxal après tubaab ba ne ne Quoi dire, moi chef de délégation pour que nous, mën a ñëw na de tout non mais c'est extraordinaire donc la réélection de Macky Sall ce n'est pas une défaite pour la jeunesse sénégalaise challenge la réélection ça donne donc Macky encore au pouvoir, ce n'est pas une défaite pour cette jeunesse sénégalaise. Surtout vous qui sont dans les réseaux là, challenge faites face. Parce que yen donne benen target Avec moi, ils ont utilisé l'intimidation. Ça n'a pas marché. Mais attention, qui a le bon passeport. L'intimidation là, Ils ont utilisé la calomnie. yak nañu der le gars est resté debout. Ça n'a pas marché. Ils ont utilisé l'argent. Ça n'a pas marché. ils ont essayé de m'ignorer le décider après nous. ko pas, parce que mais nous ko résister maintenant nous dem ci wetam nous wax wax positif pour que nous puissions bénéficier au moins même pour quelques secondes c'est tellement bête c'est tellement bête de sur page Facebook pour quelques heures pour quelques minutes donner une information mu une bombe avec le système informatique aujourd'hui dans les heures qui suivent ne récupérer votre page éclairer lanterne sénégalais Ce li nga et loolu du def renforcer dans sa position c'est vraiment bête cest que c'est tellement bête di di dugg ci page nit piraté ko di bind li nga xamni ni sa faveur la te xam nga ni ala kulli alin kooku mom lolou da kay récupérer ndax yow lolou géré woko mais heureusement que Facebook ah sénégalais momu ko ah ndax xamna ni sénégalais bu ko moma dina nek le plus grand transhumant de l'histoire des transhumants du monde là. parce que les réseaux là sonal na leen sonal bi nga xam ni lépp lu nu mën a def pour détruire ñu nekk ñi ci réseau yi dinañ ko def